tan ni tan ñoo dukkal bay sar xolle ndax xibaar baa ji ba sar ja xolle xanaa déggu leen dënnu asamaan seen ngelaw li penku suuf di riir asamaan dellu riir ndekete borom jaam ñi làq nañu jëmmam yàgguma yeewu bu dee ay gént yàlla fi yam li génn ci sama jëm te ma fan la jëm bu dellu si waatul ci sama jëm man fan laa jëm heureusement Bamba est partout si Bamba ngi fépp mooy kër a demoon wiiri wiireet maa yomba muy borom jumaay Tuuba ak njaare ba mbay borom kaalaga moo muri waat kaalaga ak jannatu di borom masaalikul jinaan bamba nee na li xaaratil xujuuri wal masaali bi tey wal jësti wal misaali kon kay moom la rek yaakaar la ñuy raaxatu boobu ba léegi yaakaar néew ndax dinañ ko jox amatuñ ko benn yoon ndax xoolee fees ñuy bañ ñu lool maanaam suñu yaakaar dafa bëgg a nax saa njott naa ko de ndax jëmm ju bànneex dëgg nakara koy gane si te naxar googu mooy feeñ ci kanamu jaam yi tey. sinir assim é, bulundum. Illuminati ras nañ ñuy tàbbee ca dëkk fu ñuy raasee sang ba daan naxi ko nekk tam-tamal ana fan la ñuy jëlee ci ana fu ñuy jëlee ci jëmm ja daa wax naan ku du yàlla sama borom ëpp mu yërmande ci jàmm ndax tey asamaan di ko jooy suuf di ko jooy xabaar wéet na. waaye dëgg lagan wéet na. waaye dëgg jàppandal wéet na. waaye dëgg dootaar wéet na. waaye dëgg xelkom wéet na. waaye dëgg may laaj. luy laaj ba tey ñu dellu di laaj. kooku mooy kan. mooy ki nu daan ñaanal ki nu daan tuubal yàlla di nu gis gël kooku moo di sëriñ Saaliw Medina gàcce ngala ma Serigne Afia Mbacke serigne Fallou joko jël Cheikh Ahmadou Lamine bar Mbacke Afia Serigne muntaha Mbacke yalna na fi yàgg te and ak wér Serigne Cheikh jëm Fall yàlla na fi yàgg lool te and ak wér di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gi yëpp njabootu mam Cheikh ibro gi ak mbokku talibé yi mbolém julit bép kilifa diiné bu ne ci réew mi ñu ngi lay ñaanal suñu morom saxal la fi donc Sorano liñuy liñuy li la rek té ginnaaw bi ñu doonee njabootu Sorano di fa tëgg ren muy quatrième édition donc dañuy dafa mel ni dañuy yeesalaat waaye nag di waaj rek waaj yi yu ëpp doole ki ñu daan waaj ndax at bu nekk rek euh, boo boo tëggee ba sa topp war nga xam ni du yomb duy metti lay doon donc moo tax lu ñu waaj daaw rek waaj lañ ren lu ko raw quoi. Hmm. wa tamit ñuy am contente jàkkaarloog troupe bi nga xamante ni ñoo fisé eskes bu Serigne Saliou xool yëpp tooy ñu lay laaj yow ba nga ñëwee ba seen premier jour répétition lan nga yëg ci seen répétition bi. waaw bi ma ñëwee seen premier première répétition donc <clears throat> li ma yëg moom kawe na parce que comme man dama yor deretu deretu artiste judd ci sama papa di comédien di acteur film donc su ma gisee kuy jouer théâtre jëmale ko ci Serigne Saliou et puis parole yi normal jaar yoon donc dafa am lu may def loolu moo waral bi ma leen dégloo euh, ma xool leen parce que déglu tamit ak xool dafa am solo mais booy déglu parole yi te xoolu image yuy joué foot mun na am te doo ko yëg parce que yow parole bi dalay daaneel ba dootoo fàtte dootoo bàyyi xel image bi li muy li muy joxe te donc boo xoolee ñoom image bi ñuy joxe donc moom la parole yi di génnee. donc moo tax euh, bi ma ko njëkkee teewee yëg naa lu kawe yëg naa lu kawe lool lool lool lool donc ñoom dama leen di ñaanal suñu borom yokkal leen gën a doole xam-xam bu baax wéral leen guddal seen fan ba lii ñuy def nii mu jëm international loolu moom loolu laa leen di ñaanal ñoom. Mm-hmm. waaw ba tey ñuy delluwaat laaj ndax seetaan nañ daaw macha allah neexoon na ren tamit nag nit ñi di ko waajal di ko gën a waaj ba mu bari doole ñu lay laaj ba xam. invité nga sa yeneen moroom artistes yi ñu lay laaj ba xam invité nga daal sa moroom artistes yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi yeneen yonent bi rawatina ñu nekk nag ay Baay Faal. ñun mënuñoo tëgg te duñu invité suñu mbokku jànkat yi parce que woykatu musique yi dañuy dañuy woote woo seen mbokk woykatu musique yi ñun tamit tuddkatu yàlla yi bu ñu xewlee tuddkatu yàlla yi la ñuy invité ñu ñëw parce que ñun ñoom la ñu am ñoom ñun la ñu am ñun dañoo amante suñu biir Si nous faw ñu monde suñuy parce que euh, des fois nga donc c'est normal pour nous, nous, même bu dul bokk c'est Serigne Touba gi nous bokk war na tax lépp rek suñu biir yaatal ko waaw à waral ñëpp contacté aussi Inch'Allah. waaw ba tey rek ñuy delluwaat di laaj ba xam am na surprise yoo xamante ne yaa ngi ko jental fanks yi wala ñun ñi nga xamante ne ñoo fas yéene ñëw ci jour ba fas yéene teew. waaw 5 <laughs> octobre surprise kese parce que <laughs> daaw daaw dama def ouverture boo xamante ni euh, waa Sorano bi ñu paree dañ ma ne ouverture bi nga fi def bi Sorano sosoo ba léegi yow yaay deuxième personne bi nga fi def. ñu ne ma benn bi Kumba la Seck moo ko fi defoon ñaareel bi yow la ndax fi ma génnee la nit ñi mosul xalaat nit dina bàyyeeku foofu ci Sorano te ren bu gën a boobu la ñuy def la fait que daaw bokk naa ko kenn rek non ren bi may def duma ko bokk kenn moo tax surprise kese la waaw surprise doy waar ngi doy waar ngi ci biir. waaw ba tey tamit rek ñuy am mbégte kontaan ni ma la ko waxee woon ci commencement ba. niñ fi teewee woon niñ fi teewee am mbégte kontaane bu baax a baax ñu lay laaj yow sa dernier mot ak lan ngay wax waa Guédiawaye info. waaw Guédiawaye info moom joxewu ma dernier mot nag ndax <laughs> sunu dernier mot ñëwagul des na ci kanam kanam kanam kanam waaye euh, Guédiawaye info donc dellu dolli di leen ñaanal parce que mooy li ma wax sànq euh, sit boo xamante ni lu xew ci dëkk bi. yow bo nekkee ci sa biir auto ñom mën nañ la ko jox bala nga àgg sa kër donc yow bo àggee sa kër sa télé doto ci am soxla donc li ngay wër ci télé bi Guédiawaye info da la koy jox parce que boudé information ñom ñoo la koy ñëk jox le fait que ngay dem di sangu di tal télé yoy ñom jox nañ la ko ba nga xam li xew lepp di nga dugg sa kër tank 20h heures jotul bu journal jotul doo ko jàpp kon Guédiawaye info amuñu sen fay parce que depuis événement bi ñu japp date bi ba légui ñu ngi juk ñom ak Sénégal Buzz 221 ñom Ali cham bayu ñu kenn site yi ànd ak événement bi yépp donc amuñu sen fay waye tay dañuy wax ci Guédiawaye info nak ñom ñoo ñu fekk fi tay déplacer wu ak heure bi ñu déplacé wu ak fi ñu fekk nu mu metté te it budul déplacement bi boo duggee sen site ñom di nga xamni ñi ay kat lañu wax naa ko keroog ci sama euh, euh, émission bi ñu doon tourné ak man nee naa leen avant may may dugg ak ñoom damaa dugg seen biir site bi contrôlé leen parce que man sama événement du bari caméra taxul ma bàyyi la nga ñëw ci événement bi mën sa liggéey taxul ma bàyyi la ñëw ci événement bi parce que boo nee mën nga sa liggéey tax teguma ci sama bët donc du taxit ma bàyyi la nga ñëw ci sama événement parce que événement gi même bu dee benn nit sax moom mooy wuy si événement bu ma fonk la li tax ma fonk mooy dama ciy sant maam Cheikh Ibrahima Fall ndax lim ma defal donc sant gi may sant maam Cheikh Ibra du ma ko foowee di ci sargal Cheikh Abdoulaye Diop xaas muy sama mag di sama xarit di sama sëriñ ak sëriñ Cheikh Mansour Kassé mu sëriñ Moustapha Massamba sama papa waaye da delloo njukkal sëriñ Baara Mbacke Afia moom sëñ Afia Mbacke sëñ Fallou donc bis boobu du bis bu may caaxaanee ba di ci dugal ku ne. on Guédiawaye info fi ñu nekk dafa wér li ñuy liggéey set liggéey bi jaar yoon loolu moo waral bi ma nee bëreet ñu ne ma Guédiawaye info mën na leen bismillah mhm. kon nag sant naa leen gërëm naa leen bu baax di ñaanal troupe théâtre bi tamit sunu borom li ma wax rek li ñuy def nañ ci am ndam nañ ci ami kër ami ci oto ami ci milliard loolu laa leen di ñaanal groupe bi nag euh, Babul Mouridina muy tëkkat yi di awkat yi di alfami clavier donc ñoom sama digganteex ñoom dafa yàgg parce que ba dara dul dara la quoi ba tey teewul ñoom ñu ngi toog bi may daayra di tëgg ci daayra yi tey ba mën a dem tëgg fi cinéma awa yóbbu programme bi soraano yóbbu ko fi Maris donc tey ñoom ñoom fu ma jëm man ak ñoom la man ak Babul Mouridina xanaa yàlla dogal rek ku ci mel ni maam Cheikh Ndaw ñu ne day dem États-Unis tombeex Sorano bi su boobaa su bëggee ñëw sax dama ko naan demal waaw waaye xam naa ni maam Cheikh Ndaw nag moom moom fi lay toog ak man waaw kon mu ngi yàlla yàlla def jàmm di nuyu nag euh, sama sama sama rakk bi njool Moundiaye ndax xam naa ni euh, Moundiaye kenn la ci man waaw Moundiaye mi may tudd nii da kenn ci man ndax dañuy dem voyage du nangu du nangu fanaan ak ak kenn mu njaay ci man lay nekk mu njaay ci man lay toogal man lay man lay wéttali man mooy sama wéttal waaw donc mu njaay base mu njaay cool mu njaay njaaj mu njaay talmbat mu njaay mbalax mu njaay polyvalent laa ko tuddee kon yàlla yàlla wéral la sama xarit a ngi noonu kon na jàmm yàgg yàlla ñëpp am jàmm barki sëñ Tuubaa